dal leen ak jàmm ci li yéen kay xëy gën tey ci réew mi FM gannaaw weeru yàlla wu ñu nekkoon ci vacances réew mi quotidien ci boppam déet si wan yéen i kabile Ousmane Sonko gannaaw ba ñu tekkee ndombal tànkam ci fonction publique naka la mën a def ba décret boobu leen njiit réew mi xàttim ñu neenal ko gannaaw bu demee jébaane ko ci cour suprême bu Ndakaaru Assane Samb ci yéen i kabile son Sonko li ñu tekkee ndombal tànkam ñu bëri ci ay organisation ak i société civile ànduñ ci benn yoon la bokk na ci wàllu Ligue sénégalaise des droits de l'homme bu Assane Dioma Ndiaye Amnesty International bu opposition bu Sénégal ak citoyen yu bëri taxaw di ŋaññ anam bi nga xam ne dàqee nañu ko Ousmane Sonko ci fonction publique waa UDR dooleel yaakaar ci yéen cabinet ni ñu dàqee Ousmane Sonko ci fonction publique bu ñu ko tuumal kenn ku dul Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo ñoom ci boppam ñoo nekk ci gannaaw dox googule mu taxit kuréel googule ni ni suba ci ajjuma ji danañu amal ab toogaay yu ñoxtu ci kanam kër Ousmane Sonko bi nekk ci cité kër góor gi observateur na moom inspecteur impôt bi ne ba fi ñu toll nii décret biñ ne njiitu réew mi moo ko xatim ngir dàq ma ci fonction publique man ay reetaan la ma def ndax man nanguma ko benn yoon président Macky Sall Ousmane Sonko ne li mu bëgg du lenn lu may tëj jémmanu opposition bi ak mboolem ñi nga xam ne ñi ay fonctionnaire lañ ci réew bu Sénégal jege ñaale Ousmane Sonko ak i awakam danañu jébaane mbir mi ca Cour suprême bu Ndakaaru las yéeni kay ne lu jëm ci élection au conseil bu na waaye bu ñu moyul moom élection du fichier électoral yi ba xam dëgg-dëgg lan lañ ca dëxañ ak lan lañ ci mën a wax duñu nangu benn yoon ñu fiy amal ay élection ñeent fan ci weeru septembre Walf Quotidien élection yu au conseil yooyu la kay état ci boppam moo ko bëgg a saboté Barthélémy Diaz ci ni cabinet jël nañu seen ngir bu ñu rek jotul fichier boobu ñu yàq élection yi ba kenn du fi wote ñeenti fan ci weeru septembre coalition ànd taxawu Ndakaaru ci ni cabinet direction générale bu élection yi ci boppam nag moo ñu war a jox fichier électoral bi mu tax ña ngay dànkaafu njiital Sénat ci ni kaay di populaire ne ay njuuj njaaj dëgg-dëgg la moom la nguur gi bëgg def ci élection yi au conseil bu collectivité territoriale moom Khalifa Sall buy sàkk ñu leeral fichier électoral bi ba benn njuuj njaaj du am ci élection yooyu la forum des jeunes socialistes ci ni ka bi ñoom di ko sànni ay xeer ndaw socialiste yooyu ne Khalifa Sall na toog ndax moom ci boppam amul benn maqaamam boo xam ne bii mën na koo tax ba mu wax ne tey jile mën naa fëgg dënnam ne mën naa jiite parti socialiste ndaw socialiste yooyu ci ni ka bi di Rewmi Quotidien Khalifa Sall ci boppam ku xam ne ne moom ci boppam amul sax koo xam ne kii war naa mën a nekk njiitu réew njiitu réew mi président Macky Sall yéenekaay bi di Sud Quotidien mi ngi ci diggante ñaari sibbu diggante opposition bi ak société civile yéenekaay ko war ndax fi mu toll nii kenn ku ne koy lalal ndëgg sarax professeur Moussa Diaw ci yéenekaay bi ne tax ba mu mën a sax indi ay sopparñi si taxawaayu diggante opposition bi ak majorité bi docteur Maurice John ci yéenekaay bi ne askanu Sénégal ni ñu ñoree léegi ci wàllu politique ci ak seen taxawaay dina tax ba nga xam ne bii nag kuy def na nga def loo xam ndax la fi jëlee woon ay njiiti réew démb tey jëlee ku defaat li ni mel dañ la fiy jëlee ki waa inaa koo jàppoo bëgg ñu jëlee ko ci bopp ministère am mooy Alioune Sarr lu jëm ci njaayam ceeb mi ñu béy ci réew mi ak ni ñu koy joxee kenn ni ñu koy jaayee fi nii toll ni Alioune Sarr tëddeewu ci ndey ji seex a par parloo dëgg dëgg la nekk day jox ñii di bedd ñi wala sax muy gën leen ñii di béy ñee keneen koy ñu tekki ndombal tànkam ci li ñu ko dénkoon mooy ma ma di Diané nekkoon conseiller bu Alassane Dramane Ouattara yéen i bi di libération ne Mamadi Diané ci boppam Alassane Dramane Ouattara ci boppam da koy tuumal ne dafa am lënkoo bari yëgoo boo xam ne bi mi ngi koy def yu Gabon ngi bëgg koo daaneel yéen kat bi ne Mamadi Diagne ci boppam kay du Alassane Dramane Ouattara dong moo ko singal yi leneen tamit loo xam ne li ñu koy gàll ci aw loo mooy lu jëm ci mbirum Soudatel yéen di libération ne aw turam ci boppam mi ngi ci looxóor boobu la nga xam ne kilifa Sénégal ñu koy waxtaanee yéen di enquête def ci taxaw seetlu ci ay kilifa yoo xam ne seen i doom ñoo leen sàcc xaalis Idrissa Seck Madické Niang Pape Diop ñoom ñëpp i doom mas ne génn neex na nga ko dégg ku mu naqari tamit na nga ko dégg fii ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru bi képp koo xam ne kay fekkee nañ la ab gobar xamal ne xel ne yoon dina la teg loxo ministre de l'intérieur moo jël ndogal bi ni mel yi ni kabine fi ñu toll nii kuy dox ku ne bëgg aat sa bopp say boore nga gànnaayu sa yetu kel waaye leneen lu du yet buñ la ko fekkee yoon dina la dóor aw yet